làmb ji commencé na sàjj gannaaw benn weer boo xam ni def nañ fi ab bër kon weeru octobre bii ñuy dugg làmb ji dana tàmbaliwaat ak ay affiche yu mag a mag a mag yoo xam ni monté nañ ko xëy na sax nee na ñu ren mooy dàq daaw mu mel ni kii le roi des arènes moom Modou Lo ñibbisi na fii ci biir mi gannaaw ay weer yu mu def foofu ca l'Amérique doon ngénte doomam kon moom roi des arènes ñëw na ñu daal xaar ana kan lay war a dajeel komba boobu ñu ngi koy dox ci suuf di ngeen ci xam dara waaye tamit kii di Gaston production commencé na teg programme am ndaxte làmb jaa ngi tijji fii ak fukki fan jàkkaarloo bu njëkk diggante Balla Gaye 2 ak Boy ñaar ki nga xamante ni moom mooy Marley war ci jàkkaarloog ak soq benn fan ñoom ñaar ñoom ñaari combat yépp ñu war a def seen jàkkaarloo le premier janvier kon mu mel ni kii daal làmb ji commencé na saa ak programme yu mag. waaye tamit combat bi war a am le premier janvier diggante Boy Niang ak Balla coow li ne cour rax si dolli ki nga xam ne moom mooy Marley ak Sokk ñu war ko def fukki fan ak ñeent après combat booy Niang ak ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye numéro 2 waaye tam beneen combat bu rëy boo xamante ni askan bi ñu ngi koy xaar muy axlu làmb diggante Franc ak Forza combat boobu sax le 2 octobre lañ ko jàppoon waaye waa Fass ñoo ñaan. ñu dàq dak doobu ñu mujj koo jàpp le 14 mai ndaxte dafa laaj wàccaay combat bu rëy la loolu lu dëgg la kon de jamono jii daal ñu mën a jàpp ne làmb ji sàjj na Modou Lo ñibbisi na di waajal am adversaire waaye tamit Balla gay numéro 2 Boy Niang 2 seen face à bu njëkk le premier octobre bi ñuy dëgmal maanaam fii ak fukki fan kon boog làmb ji commencé na neex ak ay affiches yu rëy yoo xamante ni nee nañu daal xëy na mooy dàq daaw.